oustaz Cheikh Ahmed Saloum nga xamante ni Nasiru diin la moom dundewul diine waaye dafay dundal diine fa tabaarakallaahu mbooleem daara yëpp bi mbir mi amee mi ngi jóg mi ngi taxaw fépp fu làmmeñu daara àggul mu àggale ko fa fépp foo xamante ni ndimbalu daara mën na faa jóge ba agsi ci daara mu agsi ci daara ba tey ñu agsi tey ci ndimbal lii nga xamante ni ni mu ko waxee léegi rek noonu la demee kon nag ñu ngi seereel ñëpp ak ñaan goo xamante nii jóge na ci mbooleem daaray alquran yi nga xamante ni ñoo nekk ci cees di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gën a dooleel yàlla na ko yàlla gën a dëgëral. li nga xam ni bi balaa bi wàccee ci àdduna ba tey ay bis yu nekk ñu dajale suñu dërëm suñu ñaar dërëm euh, ko benn benn daara yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi muy daara yoo xam ne dinaan seq ñoom yiw ci même bu luy xewul woon ndax xam ngeen ne bisu alxuraan mi nga xam ne ñu ko daan def fii ci diwaanu Thiès ren na waroon am ñaar fukki at ak at mu jotit am daara yoo xam ne ñu daan jàppalante ak ñun Thiès nag defe na ci limu daara ëpp na daanaka ñeenti téeméeri daara kon kenn mënta dajal lépp waaye saa su nekk da ngay xool li nga xam ni euh, jege na la nga njëkkee ci ba keroog mbir mi di gën a yaatu. noonu dajale suñu yëfi bopp ak loo xam ne ñeneen nañu koy dumbalee tey nag suñu bokk daara euh, sëriñ Boub bu CCBM di doomu daaray Kokki jàng Kokki di taalibe Serigne Touba euh, moo ñu woon dana participer ci li nga xam ne ñu ngi ciy yëngatu mooy. Euh, dana jël barkeelam dugal ko ci liggéey bi yónnee ñu euh, ñaari tonnu ceeb ak saabu bu bëri ak xeeti matière yi nga xam ne dañ koy raxase ay loxo euh, ñu nit ñi seetoon daara yi nga xam ne dañ daan jàppalante ñun saa su nekk ci bisu alxuraan bi ñu tànn ci ñenn ñennet rek ñi nga xam jotuñu jotuñu woon àgg ci ñoom woo leen ci bis bi ngi ñu ñëw fekke lii kon nag ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax ñoo ñëpp nag teew fi tey ngir li nga xam ni rod na fi ñu ñu ñu jot teg ko seen loxo lépp rek lu ñu ci jublu mooy yaatal ak euh, def defee ni ba euh, ndigal suñu borom mi nga xam ne moo ñu wax ne ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan lépp lu yiw nañ ci dimbalinte te loolu yiw bu ñu ci dimbalante euh, dañoo ne nag période dimbalante ndax weeru koor même bu balaa bi amoon weer bu jafe la ci ñenn ñi rawatina bi li to daalee seen kaw